نعم يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi jamian wa barakatuh yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci suñu seen bii nga xam ne moom mooy talabul ilm farida ci fàttali yi nga xam ne ñoom lañuy fàttali wante ak yéen delsiwaat nañ ci suñu beneen bind delsiwaat nañ ci suñu beneen fàttali tey nag ñu nar a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy al ibadat moom mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla googu bokk na ci yi ci gën a rëy gën caa màgg moom mooy julli te julli googu xam ngeen ni balaa koo nit di def faw mu laab laab googu benn mën naa nekk laabu ndox wala mu nekk laabu suuf tey nag suñu fàttali dafay jëm ci ana yan xaaju ndox moo mën a laab ak yan ndox moo mënta laab ndox boroom xam-xam yi dañu ko séddale ci ñaari xaaj am ñu ko séddale ñetti xaaj ñi ko séddale ñaari xaaj ne ñetti xaaj yi ci ñaari lay dellu xaaj ba ca njëkk moom mooy li ñuy tuddee maa un taahir mooy ndox moo xam ne dafa laab maa un ndox mu laab moo xam ne na ko yàlla bindee woon noonu la mel dara soppeeku ci su boobaa ndox moomu day mën na jàpp mën na sangu set mën na dindi sobe ndox moomu laab na mën naa laabal ñaareelu xaaju ndox bi mooy maa un najis mooy ndox moo xam ne sobe da cee dugg bi ci sobe duggee ndox mi nekk lu tuuti sobe si soppi melokaan ba wala sobe si soppi couleur ndox bi wala sobe si soppi cafka ndox bi ñett yi bu ci sobe si soppi su boobaa ndox moomu maa un najis lañ koy tuddee mooy ndox moo xam ne ndoxu sobe la ndox moomu nag lan mooy atteem mooy du mën a jàpp du mën a sangu farata du mën a dindi sobe ndaxte ndoxum sobe la kon boroom xam-xam ñaari xaaj yooyu ñenn ci ñoom moom lañu xaaj ndox am ci ñeneen ñu ci teg ñetteel bi mooy maa un taahir gayru mutahir mooy ndox moo xam ne laab na waaye munta laabal laab na munta laabal mooy laab na waaye munta sangu set munta jàpp munta dindi sobe ñu ne ndox moomu mooy lan mu ne mooy ndox mi nga xam ne lu laab moo ci dugg ba soppi melokaan bi wala mu soppi cafka gi wala mu soppi couleur bi tey par exemple ndox suukar dugg na ci ba suukar rek lay saf ndox moomu kenn du wax ne laabul laab na akay waaye mënut a jàpp munta sangu farata munta dindi sobe ndax suukar sa soppi na cof ka ga kazalika itam ndox moo xam ne parfum toq na si ba nga xam ne parfum rek lay xeeñ ndox moomu kenn du wax ne laabul laab na waaye mënta dindi sobe mënta sangu set mënta jàpp kon ñenn ci boroom xam-xam yi ñetti xaaj yi lañu ko xaaj ñeneen ñi xaaj ko ñaari xaaj yi ma njëkk a wax léegi nag moo am lu ñuy tuddee ndox mu bari ndox dina toll foo xamante ni ci bariwaay sobe du ko soppi wala sobe bu ca duggee te ñetti melokaan yooyu soppeekuwul ndox ma du doon sobe mooy ida kaana al maau al qullatayn mooy ndox bu yeggee ci qullatayn te loolu mooy deux cent dix litres su sa ndox yeggee bu ca sobee duggee ndox moomu dangay gis ne laab na mën naa laabal mu am beneen ndox nag moo xam ne ndox mu tuuti la sobe daal di ci dugg comme ndox mi ñu wax sànq su boobaa ndox moomu sobe lay doon waaye nag ndox mu bari bu toll ci deux cent dix litres ndox moomu bu ci sobe duggee da ngay gis ne ndox moomu mën na jàpp mën na sangu mën na julli mën na dindi sobe kon daal loolu moom mooy xaaju ndox yi ba ca jëkk mooy maa um taahir mooy ndox moo xam ne ndox mu laab la te mën a laabal mooy ndox mi des ca na ko yàlla bindee woon couleur ba soppeekuwul melokaan bi soppeekuwul xet gi soppeekuwul ndox moomu luy àtteem mooy mën na jàpp mën na sangu set mën na dindi sobe ñaareelu xaaj bi mooy maa un najis mooy ndox moo xam ne dafa sobewu sobe ju dugg soppi couleur ba walla guuba ba wala odeur ba ndox moomu mënul laab mënul jàpp mënul sangu mënul dindi sobe ñetteelu xaaj bi mooy ndox moo xam ne laab na waaye lu laab dafa jaxasoo ak moom suukara ci dugg diwa ci dugg parfum ci dugg ba soppi ko su boobaa ndox moomu laab na dinañ ko jëfandikoo ci aada mooy dinañ ci togg dinañ ci eh, def yeneen waaye du ci def jaamu yàlla beneen bi mooy ndox mu bari bu toll ci deux cent dix litres ndox moomu bu ci sobe duggee te ñett ci melokaan yooyu benn soppeeku su boobaa ndox ma day des nekk ndox mu laab kon lii lañ leen indiloon tey ci fàttali haaza wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب